إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala noo ngi koy bàkk di ko kañ ci mboolem tur yu sell ak melokaan yu kawe yi nga xam ni sunu borom moom moo ko jagoo te moo ko moom nu ngi teere ni képp ku yàlla subhanahu wa taala gindi na ko kooku aji gindeeku lay doon ba baaw te dara mënatu koo dëngaloo ci waaye de ku sunu borom bàyyi ak boppam ba mu sànq kookee de ku sànku lay doon ba baaw te dara mënatu koo gindee ci nu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñu ci jaamam yi muy gindi noo ngi sant yàlla bi nu dellu siwaatee ci ron keppaaru xam-xam waaye ci ron keppaaru alquran di ñaan yàlla ci bi asmaa'ihi al-husna wa sifaatihi al-ula di ñaan suñu borom mu defal tawfiq ba leer gi balloo ci alquran ba mën a niital xolum ku gëm ba mu gimmee xàmmee mbaax ak njub yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko yàlla yàlla defal ñu tawfiq yi saafara si ne ci alquran nga xam ne sunu borom wax shifaa'un lima fi sudur day saafara feebari biti comme ni muy saafara feebari biir muy feebari xol nu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala tamit mu defal na loolu comme ni ñu ko xamee ñu ngi nekkoon ci suratu nuur suratu sitri wala afaaf saaru leer saaru yi nga xam ni xam ngeen ni ñu jot a teewlu bi ñu tàmbalee tey feeñ na ci ay bind loo xam ni luy defar kër ma nga ca luy defar biir néeg ma nga ca luy defar ab société it nag ma nga ca noo ngi taxawoon ci laaya ji suñu borom di wax ni wa qul lil muminati yaghdudna min absarihinna wa yaxfadna furujahunna ginnaaw bu ñu gisee ci laaya ji ko jiib sunu borom bi soññ ñi gëm yàlla ñu góor ñi nañuy sajj seeni xeex ci waxtandi ko xool loo xam ni yàlla da koo araamal ca ñoom ñu xool ko lu ko mel ni jigéen joo xam ni jàmbur la ci yow xool koo nag am na lu ma ca waxoon ndax laaya ji loo xam ne firiñ ci nañ ko ci dars ba leweer sunu borom noppi jàll ca jigéen ña mu ne waxul waxayit nag lil muminaat ñi gëm yàlla ñu jigéen ñi yaxdut na nañuy wàcce di saggi ñoom it min absaari ngin na ci seeni gët ci seeni gis waxoon naa ni min gi borom xam-xam ne li tabridiya yaxdut na min absaarihinna te waxul yaxfaz na min furujihinna lu tax yaxdud na min absaarihinna min li tabaidiyya loolu ñiy làkk arab ñiy jàng làkk arab xam nañ ni minu tabaidiyya mooy min joo xam ne day wane ni lenn ca loola du caagi ni lépp addina bi lan la wax xaraamal na nga di ko xool déedéet waaye yenn yii ñu lim yooya lañ wax bul ko xool moo tax min nga ñëw waaye boo yegsee ci wayaa xaw na furujagul na nag luñ cay daganal ak luñ cay araamal da ca amut nit ki mën naa xool jigéenu jaamu te xool ba am sabab te bànneexu taxu koo jóg su boobaa xool booba lu dugg ci xool bi moo tax ñu ni min waaye nag jigéen yoo xam ni jaambur la nag amul benn yoon bu nit ki mën a jaar ba ànd ak moom ci buum sëy te sëy doxul seen diggante moo tax min amut ndax min kuy wàññi ne am na lu ko dagan amu ca loolu nag ci sew-sewi alquran la bokk lu mat di seetlu la te léeg-léeg def na ko romb jàll waaye lépp ci bàyyi xel wa yaxfadna na ñuy waxtu ñoom it nag min furuji wa yaxfadna furujahunna na ñuy wax tamit seeni pëy ba baneen jaaralo waaye bañ a def loo xam ne loolu la sunu borom subhanahu wa taala araamal moo tax borom xam-xam yi ridwanullahi alayhim dañuy wax ni ku mel ni Saïd ibni Jubayr day wax ne wa yaxfadna furujahunna mu ni anil fawaxish nañu wattandiku seeni fay ba lépp lu ñaaw buñ ko def imam Qatada ak imam Sufyan Tawri ñu ni amma la yaxillu lahun lépp loo xam ne yàlla nee na daganul ca ñoom rek nee nañ ko wattu ba buñ ca yegg ci seen fay imam Muqatil mu ne ani zina ñu ngi ci namm njaalo na wattu fayam ba du jaalo imam Abul Aliya mu ni كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية من بيت آية بوك في القرآن ñi santaane nit ki na wattu pëyam xamal ni bu mu njaaloo ko tax a jóg ba mu des laaya ji ñu ne ko ah mu ni waalo mu ni wa yaxfaz na furujahum na ji mu ni mi ngi tekki an laa yaraaha ahad dëgg la watul say awra watul sa pay saa fu ko waxee ci alquran bu njaaloo ko tax a jóg mu ni ba mu des aaya jii ñu ne ko lu tax aaya jii li muy wund ak li ko tax a jóg mooy aaya buy wane ni jigéen daa war a sàngu comme aaya jii wane ni jigéen daa war a sàngu nag kon wa yaxfadna furujahum na fii li muy tekki mooy na téye ay awraam ba lenn lu ca wër ca feeñ bum ca feeñ ba góoru jaamu ji ko gis kon ñun digalee góor sa jëm xef noonu lañ ko digalee jigéen matam dabaatal ay baat ndax comme ni ngeen ko xamee alquran moom ay maanim ak firiñ ci kon du jeex laaye joo tafsir boo dellu si waatee jaaraat te mën caa waxaat lu beesaat tax alquran moom ak génnoon wa yaxfadna furujahunna wala yaxdurna min absaarihinna nañuy sajj seeni xet moo xam ba ca góor ga moom ak ba ca jigéen ja moom wax naa la min di li tabaay bay yàq tekkiwul ni lislaam dani la sëggal nii bul gis jigéen ba bul xam-xàmmee kenn ci àddina bi déedéet laay bi loolu tax koo jóg moom boo ko defee rek ah xanaa def nga lu baax de waaye daal du loolal lislaam sant nit ki mën naa xool bu dee góor la jigéeni jàmbur wala jigéeni jàmbur xool góor buñ tuddee góor jàmbur te du ca am bàkkaar ndax xool ba daa am sabab kii ngi nii ma xool ko ngir xàmmee ko loolu dara newu ci xamoon naa ko ma xool ngir ah kii di wax tam ne kii jiw la xam ni moom jiw la ba léegi di ci buntu xàmmee ko loola dara nekku ci ma am aajo di wax ak moom xool ko te xool ba bànneexu ca moom taxu koo jóg loola bokku ci tegtal yi ku jàng sunna di nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay saxaabaam dañ doon jaakaarloog jigéen ña di wax góor ña jaakaarloog jigéen ña di wax ànd ak ñu sàmmonteeg frontière yi war a dox seen diggante yépp te xamuñ ci sunna fuñ naan góor ci gëmmal xamuñ ci sunna fuñ naan njattal sa dox xamul ci suñu la buñ naan di waral sa ginnaaw waral sa morom ginnaaw kañ laa noona la la muy tegtaloo mooy xadis ak fadl ibn abbas yéen mi dafa taxaw ca bisub yow naxar di waxal ab jigéen ju rafet ju taaru fekk fadl ibn abbas yéen baa ngi ko togg ci ginnaaw mbaam mi yéen bi jàkkaarloo ndaw si déglu ba xadis bi ni ma koy waxee bil xarfil waaxid noonu la tëddee yeneen bi jaakaarloog ndaw si wanante wul ak moom ginnaaw ñuy wax fadlu naa baat yoonal ñëw ca wax ja waaye mu ñëw ba dendeeg yonente bi rek ni nii ndaw si fixé ko nag di xool rek yonente bi toog ba mu yàgg mu jàpp si kimbi ni ko nii a di koy ñor di fee xam naa fadlu naa baat toog toog moo tax jigéen ak bari fit te xoolal saxaaba yi ñu baaxoo fadlu ibn abbas mu abdullah ibn abbas ay doomi ndey lañ fadl ak Abdullah ibn Abbas ñoo bokk ay yaay umul fadl ak maymuna mu ni toogaat ba mu yàgg ndax waa ji siggi waa ji xoolaat ndaw si rek yeneen di ko xëccal sikkim bi booy côté fële ñu toog ba mu yàgg mu defaat bi ñetti yoon biñ ko laajee lu tax nga def ko muy damaa gis góor gu nekk ndaw ak jigéen ju nekk ndaw jàkkaarloo déglu diggante di xoolante wóoluwuma ci seytaane ci seen diggante bu fekkoon te ni jàkkaarloo jigéen xool ko daf xaram kon foofa dana jàngale ak yeneen yu dul yi ci wane ne bu kenn waxatee jigéen jàkkaarloo moom ak yeneen yi tegtal nag yoo xam ni yéen yee dana feeñ te yéen yi dana feeñ ci yeneen yi tax kooku benn la jigéenu jaambur mu jàkkaarloo góoru jaambur ka daalika ci yu mel nii ndax mënumaa wax xam daga ne lépp waaye yu mel nii moom nga xam ni ngànte ko tax a jóg te bànneexu ci morom bi taxu koo jóg nga xam ne du soxnaam du borom këram su boobaa dagan waaye bu dee yi dagan rot na ci sunna yonent bi danaan xutba jumaa te ban ci sunna imaam buy xutba dafa bokk ci sunna la nga doon def nga bàyyi ko jàkkaarloo ak moom istaqbalnaahu bi wujuhina loolu la xadis bi ñëwee la saxaaba yi waxoon kon bokk na ci sunna di ko déglu insaaf waaye jaakaar la moom di ko xool te texte yi ñëw ci sharia góor jigéen ñoo ko bokk ba keroog ñi gis tegtal bu naan ah ba mu des bii bii jigéen ñi bokkuñ ci mbaa bii góor ñi bokkuñ ci te loolu gisuñ ko foofu. beneen bi des mooy yonent bi danaan jaakaar la saxaaba yi di wax ay soxla keroog ba mu. jàkkaarloo góor ña xutba ay ba noppi dafa dem ba ca kanamu jigéen ñi mu taxaw fekk jigéen ñaa nga ca gannaaw mu taxaw ci seen kanam waxuma mu taxaw fii ma nekk de mu bàyyi tàppe góor ñi dem ba ci tàppe jigéen ña taxaw fa te ba muy dem mi ngi ànd ak bilaal mu ni jigéen ñi ay waay waay waay jigéen ñi góor góoru leen ngeen ragal yàlla te ngeen di sarxe jigéen ñi yéen a ëpp sawara de saxaaba yi jigéen yi benn jigéen daal di jub jigéen joo xam ni saxaaba bi doon netti la xadis mu ni sufaatul xadday mooy lex yi daa am ay tupp tupp dafa li olof yi tuddee xeereer ku mën a xool nit ba xam ne daa xeereer ah loola dama ni bokk na ci tegtal yi doon tegtaloo ci wane ni jigéen dina muur kanamam nirikut force donte bu ko defee def na lu baax na loolu benn la rek ci tegtal yi donte nag juuyoo moo am foofu ci borom xam-xam yi waaye ñun loolu lañ gis ni mooy di gën a dëgër insha allah wallahu alam ànd ak saxaaba bu mu waxee bilaal nee na ma gis jigéen ñi kii di tekki jaaro noppam di sànni ci balaal kii di tekki jaaro tànkam lamu tànkam di tekki nga gis ku tekki loxoom di lu ne jigéen saraxe na ko keram ak yeneen tegtal yuy wane ni soxla jigéen daana ko am ak góor wax góor am koog jigéen wax ànd ak nag frontière yenn islam yi du yii nag yooyu danañ ko fàtt loolu lu ma ta bàyyi xel bunt bi nag dëgg la léeg-léeg ay nit danañ ci wax bu wax ci lu ëpp wane nit ki buy wax ak ci moromam du ko xool day xool ci asamaan te mbaa mu dëgg ñett ci suuf mbaa mu wan ko gannaaw ah man di wax dëgg yàlla kuy sàmm njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ñu nangu mukk nga bëgg noo bëgg sàmm njàngale yonent bi waaye nag fam yemoon bala muy yem fam yemoon bala muy yem lan gis ni mooy la tax la ñuy taxal lan gis ni saxut kat nag wax dëgg yàlla luñ bëgg a ñagal yonent bi toolam biñ bañ mu booy duñ ko ñagalee ak déglu bëgg ku ko ñagalee toolam sunu maam wala yubdiina ziinatahunna wala yubdiina jigéen ñi bu ñu feeñal ziinatahunna seeni taar illa lu dut li buulatihinna seeni borom kër laaye diina laay ah aywa illa ma zahara minha kon dama tëb naam kon wala yu diina bu ñu feeñee ñoom jigéen ñi ziinata dun na seeni taar illa ma zahara minha lu dul la ca feeñ ma ne laaye ji kon laaye ji mat a def këddëb tànk teg ca ab baaraam def ci ay waqafaat ndax laay ju am solo la wala yubdiina diinatahunna jigéen ñi bu ñu feeñal seeni taar te laay ji aaya ju war a soxal jigéen ñi jullit yi la sunu borom mooy wax ak ñoom wala yubdiina bu ñu feeñal ziinatahunna seeni taar illa ma zahara minha lu dul la ca feeñ lan mooy seeni taar ak lan mooy la ca feeñ laay ji nag li may njëkk a wax mooy laay ju am la ay juuyoo ci borom xam-xam loolu moom laa leen njëkk a wax balaa daraa xew ndax boo déggee tey wax naa lii ëllëg mën ngaa dégg ko wax leneen boo déggee nee naa lii mooy la ca gën a dëgër ëllëg it mën ngaa dégg keneen ku gis la ca gën a dëgër waaye nun day laaye jii laaye joo xam ne sonneex na ci lool laaj ci ay boromi xam-xam def ci ay gëstu maa ngi fàttaliku waxtaan wu mu ci defoon boobaak léegi mi ngi bëgg nag juróomi at ma jëm juróom benn kon loolu mi ngi bëgg a yàgg defoon ko ci jilbaabul maratil muslima julit bu jigéen nan la war a solo ci lislaam lan ca gisoon ni mooy la ca gën a wér ñu wax ko ca te it maa ngi baamu wax ne la ma ca waxoon ba tey nag saa àllu foofa la gën a toll gisuñu lu ko sukki kon saa boo gisee yeneen lu wute yi ñuy wax jàppal ni matala ni moom am na juyoo ci borom xam-xam yi waaye nun day fi ñu jot toll ciy gëstu lanu xam-xam wan lanu ay boromi xam-xam yu ñu doy doo seen xam-xam wan mooy lii nu la nar a wax te moom lan waxoon kon baamuwaat lay doon wala yub diina bu ñu feeñal diina ta dum na seeni taar lan mooy taaru jigéen borom xam-xam yi dañ cee wuute ñenn ñi ni taar bi mooy kanam ah kanam ca lan tey def puudaru maquillage ak pastel ak ak yi ma xamut poudre maquillage ak pastelu ak rosa ak yi ma xamut defe naa bari na lool waaye yooyu moom jot naa ko kee xam ñu ne yooyaay taar bi am na ñu ne déedéet taar bi mooy yére yi jigéen ja sol nga xam ni am na itam la nga la ki fera ki daamine moo tax illa ma zahara minha lu dul la ca feeñe borom xam-xam ñu ni kon mooy yére yëpp sol ca kaw ak taataar ya cay feeñ sama jigéen ñi am na xeeti yére yu ñuy sol yoo xam ni faw mu am cam langal la ñuy muuroo ca kaway tax du ko gis am na xeet wu ñuy sol wutudd ndoket ak tay baax ak marinière ak xàppati loolu defe naa moom léegi nit ñi déggatuñ ko xàppati turu yàgg la sax loolu ba ñuy nekk ko rek lañ ko daan dégg yére bu ñu tuddee xàppati boo xam ne fii yëpp day xàppati di péeg marinière tay baax ndoket ak xàppati ak yi ma xam ak yi ma baax ñu ni yooyu nga xam ni day feeñal taaram wala mu am ay ferati ñoom seen yooyu mooy taar ba am na ñu ne déedéet taar bi mooy lépp loo xam ni ndaw see ko def ci kawam mu dugaal li ci yére yi kon moo ko indi mu dugalaale pastel beeg ñoom seen ak yooyu moo ko ci dugal wala lu mu takk wala yu demee noonu suñu boroom ni kon wala yu diina bu ñu feeñal ziinatahun na seen taar illa ma zahara minha lu dul la ca feeñ seen taar lu dul la ca feeñ lan gisoon ni mooy la gën a dëgër mooy la ca feeñ mooy xar kanam ak ñaari loxo taar ba mooy lan cay def ëmbaale it nag lépp loo xam ni moom la ñuy def ci yére yi lu taaru loo xam ni bu góobatu góor xoolee mu fàbbi nun day loolu lañ gis ni mooy la gën a dëgër doonte nag ay boromi xam-xam wax nañ ni loola gën a dëgër indil koy tegtal waaye ñun lii lañ gis ni mooy li gën a dëgër ci am nay tegtal tegtal ba njëkk bu ñu am mooy tafsir ab Abdullah ibn Abbas muy benn ñu ne kon illa ma dahara minha lu dul la ca feeñ mooy li nga xam ni feeñ na mooy xar kanam bi ak ñaari loxo yenn ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoom dañuy wax ni xar kanam moom kat awra la ñoom dañu jàpp ni kon tafsiree laaya ji nii njuumte la mën nañoo gis loolu ndax ñoom lañ jàpp mooy xar kanam moom force jigéen la ko war a muur donte ñoom gisuñu loolu insha allah mooy li ma xaaja ma waxoon sànq rek yonent bi salaa sallam ñu ñagal ko toolam bi wax dëgg yàlla bëgg nañ ci lool bu nu amoon la ñu gën a liñ nag jigéen ñi def fan moo tax bunt bi sëriñ siñ ci am yépp dañ cee naw cheikhul albani rahma rahimahullah cheikh albani naw lañ ko trop ci xam-xam donte léeg-léeg nag ñu jooyoo ko moom ci masala ndax danañ gis yeneen yi borom xam-xam yoo xam lu gën dëgër la mu wax waaye masala mii moom naw naa ko ci trop ndax moom boo dee xool buy leeral masala mu mel nii dafay faram-fàcce leeral xam-xam moom bokk na ci borom xam-xam yi gën a pëkk ci wane ne xar kanamu jigéen du awra ba nga koy nëbb bàyyi borom xam-xam wax nañ ko ci ay wax ba am na ñu àgg ci tar ci kawam tax banaa moom mooy tabarul loo jigéen ñi waaye loolu wax dëgg yàlla dama jàpp ni xir ci sàmmale yonente bi rek la waaye ku xam Cheikh Albani xam nga ni loolu ëpp naa teg ci dara Cheikh naa ko boo demee këram da ngay fekk ay soxnaam di muur seen kanam ay doomam yu jigéen di muur seen kanam te bu liiree téeréem danaan la muur kanam bu dee ci xam-xam la ñuy waxee warut gis nga benn bis bi ñu ko ko laajee xam nga lu mu wax bu may wax damay représenté xam-xam comme su ma représenté xam-xam la ma jàpp ni lool la xam-xam taxal lool laay wax su may jëf nag mën na maa seet ni lii baax na lee baax na te lee gën a baax ma taamu la gën a baax moo tax sama waa kan di ko def te wallahi loolu mooy maanu te ci xam-xam mooy booy wax bul far fenn waxal la xam-xam wax sooy def nag yow mën ngaa tànn la nga gis ni mooy la gën a dëgër ca yow wala la nga jàpp ne lii baax na lee baax na doonte la lay gën a baax ma jël lool kon bunt bii ak juuyoo ku yaatu boo xam ni man naa li may wax ni ab tënk la waaye li ci borom xam-xam su ma ko bëggoon wax laaya jii li ma defoon ci aaya jii paase danaa ko ci defaat muy yem ci ndax bi yëpp kon tooba sunu borom mu ni wala yubdina bu ñu feeñal ziinatagunna seen taar illa ma zahara minha lu dul la ca feeñ kon lan gis foofu ci boole li ci gën a dëgër jigéen di toll ku ne xam na ni lenn ci yëri cat yëre yi lenn ci ay yëreem jam sol mën naa feeñ donte muur na muuru bu jot lenn ci ay yére mën naa dugg ci illa ma zahara minha xar kanam day dugg ci illa ma zahara minha ay loxo day dugg ci illa ma zahara minha ànd ak nag su ma jëloon sama loxo yi jël ab dessin kat fuddal mu cap capal ma ci defal ma ci ay affaire yu dessin yoo xam ne xool xoolaat lay tudd booba loxo moom dootul duggati ci illa ma zahara minha tomb yi bàyyi leen ko xel bu baax xeet yi ma gis tey xam da ngay jël loxo bi pour dem ko deseene fii tam langal guddal wàccal ah déedéet loolu moom duggatul ci illa ma baxara min saa bu ma jëlee xar kanam gi ni paas fii ak rosa wala pastel wala paaw wala puudaru su boobaa taar ñëw na googa kanam moom biir kër mbaa daa war a laax loolu tamit nañ ko bàyyi xel kanam ga nuy wax moo war a feeñ ak loxo ya mooy la nga xam ne lenn ci taar taxu ca ndax yii mooy tax ka koy def boo ko laajee lu mu ci jublu taxaram tax mu di ko def loolu nag kenn terewu ko jigéen su fekkee la muy def araamu ndax aw man yunassau fil hayya wa huwa fil xisaam gayru mubin kon bu ñu feeñal seen taar ñoom jigéen ñi lu dul la ca feeñ la ca fës illa ma zahara minha lu dul la nga xam ne mooy la ca feeñ Ibn Kathir mu ni ay laa yudhirna shay'an min az-zinati lil ajaniba illa ma yumkinu ixfaahu illa ma la yumkinu ixfaahu Ibn Kathir bi tafsir laay ci umda la ci laay ci ndax imaam la ci tafsir mu ni bu ñu feeñal seen taar ñeel jaambur yi góor yi lu dul loo xam ni kenn mënu koo lëbb ah Ibn Mas'ud mu ni kar ridaa yi wa thiyaabi lu ko mel ni colka gi nga xam ni yow moo xam jilbaab nga ko tuddee moo xam malaan nga ko tuddee moo xam foofu nag maa ngi leeral ñu jàpp ni xëy na jigéen ji pour mu muuru rek faw mu def ak lu ñu tuddee jilbaab boo xam ni ci forme bi nga xam nii lañ koy def déedéet mbir mi tënkoowut noonu léeg-léeg ay nit dinu woo dinu laaj ni nun ñoo wax loolu waxuma woon loolu de déedéet lan waxoon mi ngi ci ay kaset waxu ni waxul ni faaw mu mel nii ñu ko gisee kiif kiif su ko melul du moom waxul loolu ba léegi bu ko nuróo lañ waxit du loolu ndax tey boo demoon tey ma ñoom la ñuy tuddee jilbaab ak boo demoon Pakistan la ñuy tuddee jilbaab bokkul boo demee Taïwan la ñuy tuddee jilbaab ak boo demee Arabie Saoudite la ñuy tuddee jilbaab bokkul boo ñëwee Sénégal ak boo demee feneen bokkul kon jilbaab ci boppam du caagee na nekk benn forme bii ñu ko xamee wala na yor couleur bu ñuul comme ni ko déedéet loolu waxuñu ko li wax daal na nekk yére boo xam ni dana sàng ca kaw ba ca suuf couleur bu mu doon bu dul bu lislaam tere baax na bu mu yaraa bu mu bu mu bu mu oyo bu mu seere ci sa yaram bu mu xeeñ parfum bu mu xeeñ cuuraay bu mu nekk yére boo xam ne bu cher la nekk yére puukariw ca charte ya nga xam ne leeraloon nañ ko ci mooy charte bi kon Ibn Mas'ud wax loolu Ibn Mas'ud mu ni karridaai wa siyaab يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب أه؟ من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه جيجن يلن دون صل مفيد كو ولا سي تاتيرين ولا يدمي نونا فين ولا يغا خامتيني موم لا نيي كوب سي سين كاو nee na yooyu yëpp yëpp kayiti sol yañ doon sol nga xam ne yii moom wax dëgg yàlla mooy laax yeneen ngay làq waaye du lii mu ni loolee du ci dugg moo tax waxi ibni masud jooju al imam xasan basri moom la wax ibni sirin kadalik abul jawza kadalik ibrahima naqai kadalik ah imam arash moom mu nekk li jële ci saïd ibni jubair mu ni wama wala yudina zinatahunna illa ma dahara minha mu ni wajhaha wa kaffayha wal xaatam gis ngeen ni waxu Ibn Abbas nu mu tuddati Amash mu jëli Saïd ibn Jubayr Saïd ibn Jubayr ndongal Ibn Abbas la woon mu ni lam ca namu ci laay te mooy xar kanamam ak ay loxoom ak jaaro bam takk xaw ma lu mu namu ca jaaro bam takk nag waaye bokku ak jaaro yi nga gis léegi man jaaro boo xamante ni daanaka mbar na nekk ca kaw daanaka mu ëpp loxo ba loolu moom bokku ci moom yooyu moom ca xeeti taar ya lay doon kon mi ngi noonu laay ji kon borom xam-xam ci bari am na ci borom xam-xam yi ku mel ne abu ishaq as-subayyi mu jëlee ci abu abil ahwas mu jëlee ci abdullah ibn umar mu ne walaa yudna zinatoon mu ne az-zinat al-qurt wad-damlaj wal-khalqal wal-qilada wa fi riwayatin anhu bi hadha al-isnad qala az-zinatu zinatan ila akhiri kalami lu mel ni ay jaaroog ay lamak yu demee noonu nga xamante ni day féete ca biti bu ca lenn ci taar taxul mu ne loola lam ca namm am na riwaaya mu ni taar kat ñaari taar la taar boo xam ne jëkkër rek ko mën a gis ak taar boo xam ni ku dul jëkkër mën na koo gis faram-fàcce wax ci ay wax yu yaatu li ma bëgg a wax ci buntu boobu mooy masala mi su ma ko toppee dana tudd lu bëree bëri ci waxi borom xam-xam luñ jël suñu waxtu ku dellu ca dars boobu ma leen dindi sànq di nga ca fekk ak mbir su tënku te leer ci lan la laay ji dégg ci bañ koy tafsir ca leeral nan la jigéen war a muuroo kon illa ma zahara minha lu dul la ca fës xar kanam lay doon ci liñ gis ni mooy li gën a wér insha allah ak ay loxo ak ya nga xam ni mënee su koo lëbb lu mel ni yëree feeñ ca lam sol ak lam muuroo rek ca kawam ak yi demee nag nga xamante ni yii moom yuy feeñ la mu ne loolu la ñuy tekkee la ca feeñ sunu borom wal yadribna ah wala yubdiina du noonu la wala yadribna jigéen ñi nañu wàcce wàcce ku jot na wala yasdubna nañu wàcce wàcce ku jot bi xumuri ginna ci seen muuraay yi ala juyubi ginna bañ muur seen dënd yi loolu nag ki ciy tegtaloo ki ciy tegtaloo di wane ne kon muuraay fii rek la war a yem xamut la ñuy wax muuraay daf di ñaari xaaj ci ñuy jàng xam-xamul islaam dafa am loo xam ne loolu la ñu tuddee njiit laay moom la jigéen ji jiital alximaar xëy na ñenn ñuy jaar diggante ximaar ak niqaab boog day su muur kanam ñu tuddee ko ximaar déedéet ximaar mooy li kiy teg ci boppam mu muuraale ba wàcc ci dëndam donte borom xam-xam yi nga xam ne ñoom nee nañ kanam muur ko dafa war bu ñuy firi ximaar dañ koy firee ximaar maa xappal wajha lu muur kanam waaye ni ka firee yi tafsiram tekkeewu ko loolu tey même bu dul loolu sax jàpp nañ ni loolu moom gën a dëgër li gën a dëgër mooy ximaar mooy lii ma wax kon aaya ji mooy aaya ji féete ci biir yudniina alayhinna min jalaabiibihinna ñëw tege ca kawam faram-fàcc yi yëpp ku dellu ci dal sa boobu ma la def ko ci fekk insha allah kon sunu borom mu ni wal yadrib na nu wàcce wàcce bu dëgër bi xumurihin na ci seen muuraay yi ala juyubihin na ba muuraale seen dënn lu tax ndax xam nga da nga doon sol lu tuddee tay baax fii ngay feeñe xàppati day ñëw ba fii sax fa dënn ba ca kanam ca ginnaaw lépp di feeñ ndoxet kadaali yii xeet yére yëpp boo ko xoolee ba ci biir nii lay def day kuppati ku pëtiku ku pëtiku boobu nag balaa ñu laa wax nooy def moom nëbbu ko ba pare kenn wax la bul solo yére waaye nëbbu ko ba pare ñu doog a wax nag gan conk ngay sol bu fekkee surtout rawatina boo solee yére bu am taar xam ngeen jigéen ñi léegi am nañ xeet yére yoo xam ni wallaay boo ko xoolee ba yàgg da ngay ree tax lii nan la ko nit di mën a xoolee di ko jënd yére boo xam ni allahu akbar foo xool am taxa nga xam ngeen yére yi ma yor am na xeet yére yoo xam ne man xaw ma luñ ko tudd dégg naa dafa cher ah borom borom de ki mbokkam rek ak mbokk ki mbokkam yére boo xam ne yow foo xool ab bën bën nga fa kon kay jërëjëf loolu nga ko doon sol yére boo xam ne yow boo demee kilomètre nday yow bën bën ya ngaa nga gis càmmoñ bën bën yaa ngi bu gelaw bi cee rey la bu naan ci ngeen ah wax dëgg yàlla ah xam naa ne de bu dee yére de li ma ne mën naa yem ci biir néeg bi moo gënoon a baax ma léeg-léeg gis ko ko sol nag koo xam ni subhanallah ku yàlla dénk ko ci kersa dara dara koo xam ne moom kersa moom yenwu ci dara dara dara sol loo xam ne yow daanaka mën na ne ay awaram yëpp yaa ngi koy seen wala ayaasu billah moo taxit loo ci gis suñu bët yi saa bu xëyee dina góob ci ay musiba di xool ba du tolloog saako bëgg gis bañ gis da ngay góorgóorlu ba sol nasallah salamata wal afia kon suñu borom ni nañu wàcce seen muuraa yi ala juyo bi génn ba muur seen dënn yaag ya nga xam ne mooy xappatiku baat baat takkukaayu ceen baat nëbbaale jaarooy nopp ya ci la bokk de jaarooy nopp yi ci la bokk ndax lii lépp ci awra ji la bokk kanam nopp bokk ci kanam nopp bokk ci booy jàpp yonent naan al udunaani min ar rasi ñaari nopp ñi ngi bokk ci bopp kon atteb bopp moom mooy atteb nopp moo tax bokk ci muuraay dama naan al udunaani min ar rasi àtte bopp ci muuraay mooy àtte nopp kon jaaree du fee caq bay kadaari ak taar taar suñu borom mu ni subhanahu wa taala wala yub diina jigéen ñi bu ñu feeñal ziinatahunna seen taar illa li buulatihinna lu dul seen borom kër kii sax bu ñu sañoon dañuy wax ni duma damay wax ni bu leen feeñal seen taar lu dul seen borom kër ba pare ni deel feeñal sa taar sa borom kër xam nga lu tax ma wax loolu yàlla dañ bu leen feeñal seen taar lu dul ci seen borom kër boo ko waxee ba nopp ma tegaat ci nii waaye nag ci mit tax ne deel feeñal sa taar sa borom kër xam nga lu tax xoola fitna yi ni mu baree ci mbedd xoola xeeti taar taar ya nga xam ni yépp bakkan da doon bëgg di ko xool wa maa ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu bakkan moom boo ko bàyyee boppam ab saay saay la la ammaratun bisu day digal lu bon illa ma rahima rabbi lu dul bakkan yi yàlla yërëm kon jigéen bi su fekkee ne taar taar yooyu du ko defal borom këram bu génnee ci mbedd ma xool ko musiba dal ko kon pour nga dimbali ko ca sa jam xet ma faw nga dimbali ko ci taar taar yooyu moom moo koy gis waaye jigéen ñi suñ jamono jii moom koo ci gis mu tudd ziinatakum na rek nee ko foo jëm est-ce que dégg ngeen yooyu yoon ku ci def ziinatakum na rek nee ko foo jëm maanaam taar taar yooyu daal faaw mu jëm ngeen ci mbaa ceet mbaa kër ma bëgg nga bàyyi ma sàmba kër yaay ma démba gis nga waaye sama biir kër la taxoon ñu naan bul dugg ci kër lu dul dangaa yëglu la taxoon ñu naan jigéen ni muy comporté woon ci biir këram bi ci këram la taxoon ñu naan la taxoon ñu naan la taxoon ñu naan day fekk jigéen ji bu nekkee borom këram taar taaram moom moo ko fa nekk bal damay wax ne bu sunu kër yi nekkoon kër ya l'islam tënk dëgg ñu am appartement boo xam ni jigéen ñi kese ñoo fa nekk góor demu ko mbaa góor gu fa bëgg a dugg da nga fane ba pare amul ay étage yu leen tiim yoo xam ne da ngay tiim kër ga di seen mawaañaa yépp daax damay wax ni jigéen ji bu nekkee ci biir këram ak borom këram xam minute bi xaraamul de naa la su ma ko waxee rek léegi am na gaa xam seen seen seen fi dina tuxi mini jip jëmmi jëmmi jëmmi mini jip bi du moo xaraam piso ak xeeti colka yu bon yooyu du jëmmi colka ga moo xaraam moo tax borom xam-xam yi ñi leen di laaj ndax dagan naa jëb jaayam déet xam nga benn waaye da nga jëpp bu gàtt dagan la jaay defe naa ñun loolu la ñuy faral di wax fekk déet ahan kay waa jigéen ji nga xam ne mini jip ba su ko jëndee ci kanam borom këram kese la koy sol du ko génnaale kooku sañu gaaw dafa xaraam déedéet te gëlëm li ëpp ñu koy sol borom xam di ko sol waaye nag jigéen mën na koo gën dem jël ci biir këram xeeti col ko yu seere yi doon seere jigéen ngay doo nga ni jaay ko dafa xaraam waa jigéen di ñëw pour bu ko jëndee moom biir néegam kese la koy solee borom këram nag dañ ñu gaaw dafa xaraam moo tax daam masal yoo xam dafa jara teey moo tax boo teey rek di nga jaxase ko taal kon sunu borom subhanahu wa taala mu ni bu ñu feeñal seen taar illa li buulatihinna lu dul seeni borom kër al buula mooy jëkkër fexe ba li di xeeti taar da ngay fexe ba nekk ni ni ko la fi tuddee saytaane ci biir këram donte saytaane sax du baat boobu la ñu war a jëfandikoo xëy na waxit laata nam ma maanaam fexe ba mëddal ko luy tax muy génn ca biti di fitnawu ca jigéen ñi jaambur yooyu fa nekk kon bu ñu feeñal seen taar fii nag suñu borom tàmbali naa tudd ñi nga xam ni ñoo mën a gis sa taar lu ma ta bàyyi xel gis nga bunt bii dinaa wax ne jigéen ñi duñ ciy bàyyi xel waaye bunt bii ak buntab ñi la war a mën a takk ak ñi la war a mën a takk ñi la war a mën a jox loxo ak ñi la war a mën a jox loxo ak ma xalaat société bi daa jaxasoo de boo amul temps rek mën ngaa bañ a ràññee bunt bii kon borom bi subhanahu wa taala mu ni wala yubdina mu ñu feeñal zinatahunna seen taar illa li buulati ginna lu dul seen borom kër borom kër nag mooy ci moom kër gi gis nga borom kër borom kër mooy ci moom kër gi loola tax góor bi sëy wóorut de jamono daa suppeeku nag ba góor ñuy sëy waaye wóorut de góor daal takk soxna indi ci sa kër moo gën a wóor de waaye ba fee moom sa kër ga de gaa yi naan gun la takkee mbaa nga dem jàmbur moom ceeb ba safee xorom mbaa nga saf kaani doo sañ a wax de ah xanaa nga bari ful la lool mbaa nga la yàlla xam borom kër moo moom kër gi moo taxit bu doom juddoo dañ koy jox sant wi kenn du jox sant wi jigéen de ñi jàng tubaab sax da ngay dégg madame nangam jox ko sant borom këram donte nag lislaam sax la bëgg du loolu lislaam la bëgg wax madame la nga doon madame sa sant baay ud'uuhum li aabaa'ihim mooy bu ñu nee madam sa sant bàyyi lañ la war a jox yooyu sew sew diis ba ràññi donte yéen a jiitu tubaab bi yi ca daje pour tax ñu bàyyi ko daa bàyyi beneen bi ci des mooy borom kër gi mooy koo xam ni moo takk andi ngir bëgg mucc sa fitna yi biti yëpp kon nan fexe ba musal ko ci ci biir kër gi moo tax xeeti colka yi lay wax yépp yu gàtt yaag yu teere yaag yu nangam ya naan jigéen daganul mu sol ko jigéen bu nekkee ci biir néegam moom ak borom këram sañ na koo sol kenn du ko ko teg kon buñ feeñal seen taar illaa li buulatihinna lu dul seen borom kër aw aabaa'ihinna wala seen baayu borom kër sa borom kër sa magi borom kër nag déedéet ndax kooku alhamdu yent yàlla ba muy teree wéet gaay naa ko ah waa bu dee ku bokk sa jëkkër nag muy yóo tot tot tot tot tot kookoo gën a garaaw dee alxamu almawt kookoo gën a garaaw dee ah waaw tey boo ñëwoon moodu moodu moodu mu àll ba ca jàmbur ba nga xam ne jàmbur na ci kër gi nga ñëw fekk ko mu toog ci kaw la lu bàyyi ma tàmba ak sa magi jëkkër nga ñëw fekk mu toog si bàyyi maanaam sa sa ci lalu borom kër gi ban la sa xel di ñaaw boo amee booy ñaaw ban la sa xel di ñaaw jàmbur bi parce que da nga ah kii ah kii kay kii bokk ak diw day bàyyi kii dafa kii dafa ah kii dafa toog rafet njort gën cay rafet njort nag moo tax musiba di bala bàyyi njort moom bis bu ne nag moo tax wallahi professeur bu mag bi mooy sallallahu alayhi wa sallam ay jàngaleem dafa mokk lu mbax note toppalante nag te lu jamono suppeeku suppeeku rek saa buñ la ko nit ki nee rek nga ni kii xanaa daa fekkee woon bi ñuy dund rek allahu alquran dafa bokk ci ay xasoo itam dafa bari bari bari bari bari mooy bokk ni ci ay xasoo itam mooy saa buñ la ko nettilee rek da nga yaakaar ni alquran bi moom 2009 la wàcc ñu ngi ci 2009 wallahi léeg-léeg ñu tafsir la aay yoo xam da nga jàpp ni aay yi 2009 la wàcc te moo ne ñoom ñoom wàccoon ci seen jamono jooja dafa mel ni jamono jooja la toog luñ doon dund la doon wax moo taxit loo ci gis musiba yi am ci jegeñaale yi sama gi jëkkër sa nangam nangam rawatina nag bu su jëkkër ji tukkee la ngeen bokk génn kër lii xew nit ngeen di ko dégg ma di ko dégg mu ngi fi kon illaa li ko xoolee na seen borom kër sénégalais nag société sénégalais bi am na da ngay dégg sa mag yi jëkkër ak sa nag sunu séeri bi déedéet jigéen mënta nekk ci kenn keneen ak keneen masala yi ma ta bàyyi xel nga ngi dégg eh waaye ana sunu séeri bi ana sunu jabar bi eh joxali sunu jabar bi mu fóotal ñu ko def jabar naka la mën a nekkee jabari jiw ak jiw déedéet jabar jabar yi kenn la mën a doon sunu jabar bi déedéet du sa jabar de jabar te boo wax ñu ni waaye da ngaa lii ah da ngaa la loolu lislaam jàngale sunu jabar bi déedéet jabar yi jiw kese la jabar dee su ko bokk benn jabar lay doon xanaa wàcc keneen jël mbaa dee keneen jël magi jëkkër kon bokkut rakki jëkkër it ka daal aw aabaa yi ne wala seen baay yi sa baay yi jëkkër baayam tamit ca la baayam mooy kan mooy maamam sa borom kër baayam mooy aw abaa'ihin aw abaa'i bu'ulatihin seen baayu jëkkër ah aw abaa'ihin na wala seeni baay yéen waaw foofu seeni baay lay tekki sa baay yow yow ku jigéen yi sa borom kër mën naa xool sa taar sa baay mën naa xool sa taar bàyyam mën naa xool taar bi wa in ala ak lu mu kawe kawe mooy maam ja maam daal sa maam sa maam bu góor yow ki jur sa papa yow ku jigéen mën naa xool sa taar boo soloon tay baa mbaa ndoket mbaa marinière mbaa jënd jaare or dóor fii jënd ab saq ni ko saq ni ko fàcc fii ah wala nga musóoru musóoru bu ñuy tuddee tagal ci biir kër gi yooyu yépp bu doon tëbite dañ naan daganul keneen xool ko waaye sa baay mën na koo xool sa baay jëkkër mën koo xool sa maam mën koo xool moo tax mu ni aw aabaayi buulati génn wala sa baayu jëkkër sa baayu jëkkër ak baayam muy maam jot sa jëkkër papaam ak sa ko jur muy maam jot ñoom ñaar ñëpp comme niñ la ko waxee bi ca banqaas ak ndeyjoor ba boo ñëwee ca banqaas ak càmmoñ ba noonu la banqaas ak ndeyjoor ga mooy ña la meññ sa baay ak baayam banqaas ak càmmoñ ga mooy ña meññ sa jëkkër ah baayam ak baayam est-ce que li may wax expliqué mi ngi leer kon ñooñu mën nañoo di sataar sunu borom kon mu ni ñii mën nañoo di sataar aw abnaihinna wala seeni doom sa doom mën naa gis sa taar doom ji nga jur mën naa gis sa taar doom ji nga nampaale muy doomi jiitle ji nga nampal ko nga xam ne nampal nga am na lu muy dindi lu bari ci lislaam bi day dugg ci sa doom yi kon yii ma wax yépp mën nañ koo def waxuma nag taar yoo xam ne day yaa koy def exprès pour fitnaal nit ñi yooyu taar saxul may wax taar yu simple yii nga xam ni maam mooy di jigéen doon nëbb bu dee génn ñu ne ko soo nekkee sa biir kër mën nga koo dindi kon yooyu benn bu ci am ñooñu mën nañ koo xool aw abnaai buulatihinna wala doom yi sa jëkkër jur donte yow juróo leen doom yi sa jëkkër jur donte juróo leen xam nga bu ne aw abnaaihinna seeni doom rek doy na abnaaihinna mooy doom ji nga jur abnaai buulatihinna mooy doom ji sa jëkkër jur doom ji nga jur ak ji sa jëkkër jur wuute nañ de doom ji nga jur yaa sa jëkkër doom ji nga jur buñ ko waxee mooy ji nga jur yaa sa jëkkër buñ nee doom ji sa jëkkër jur mooy ji sa jëkkër jur waaye ci beneen soxna la du yam ah alquran moo jox waay sa doomi jëkkër sa sa borom kër dafa am ñaari soxna wala ñett wala ñeent comme ni ko góor yi dëgër yi defee dama nekk njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam góor ñi nañ bàyyi xel loolu gis nga lii da lay wan ne l'islam yii ñuy wax yëpp sa bopp programme waay xam naa jigéen ñi ne masala moom duñ dañuy bëgg ku fa romb rek coppati jàll fekk déedéet masala mi du ku ñuy coppati di jàll yàlla dafa bëgg subhaanahu wa taala ji góor ñi nañ leen bàyyi na leen yàlla tàkkee te jigéen fii kii man dëgg dafay am te ñu bari duñ ko seetlu mooy yàlla xa wa maa xalaqa zakara wal unsa xam ngeen yàlla moo bind góor moo bind jigéen te léegi nombre jigéen ñi nit ñi moom léegi xam-xam ak lu dul xam-xam ñëpp dëppoo nañ ñi jigéen ñi ëpp góor ñi dafaa dëppoo nañ loolu waaye yàlla mu ngi ëppal lu tax muy ëppal jigéen ñi te ëppalul góor ñi lan moo tax bindul million góor million jigéen di dee dee suñu borom day bind ni million genn wàll ay jigéen wala lu ko ëpp bind million góor kese ndax dafa bokkoon ci budget bi suñu borom borom tëraloon mooy góor bañ a yem ci benn xet ma jooju nit ñi duñ ko seetlu yàlla day bind ñetti jigéen bind benn góor di bind ñetti jigéen bind benn góor muy complet muy ñeent nga xam ne fi mu ne nii tey góor ku ne bu yemee ci benn ñiy taxawaalu day bari ndax yë ndax ndax mbir moom yërëmtaliwul ah ndax mbir moom yërëmtaliwul ngeen nekk ñeenti jigéen di tey ci kër ñeenti jigéen nekk ci kër amagu leen borom kër yow yàlla war tëggal la nga am borom kër rëcc nga ne man bëgguma wujje ah waaw ñu nangul la ko léegi doo wujje xam nga say rakk moom du dee mën a fekk waaye say rakk ñenn lañ war a fekk léegi yow boo nee duma wujje sa rakk yi ñenn war a fekk ñoom it ñu ni ñoom duñ wujje ndax yow ci sentiment li ngay yëg rek ci nite saa l'islam tegal sa l'islam ci nite rek ndax sa nite may na la sa ñett rakk yi jigéen des ci kër ga amul borom kër ndax fañ war a dem ñoo ñaa ferme seeni bunt comme ni nga ko ferme moo tax damay wax ni gis nga mbir mi buñ ci doon waxee xel rek te benn aaya ñëwul xadis ñëwul dañuy yëg ndeke yàlla ni mu ko programmé noonu la rek tabarakallahu ahsanul xaaliqin kon gis nga ñi sa borom kër jur te juróo leen mooy abnaa'i buulatihinna aw ixwaanihinna wala tey ci wolof mooy ñan tey càmmiñ aw ixwaanihinna wala tey càmmiñ bu dee bu dee góor la bu dee jigéen la ñu ne say jigéen tey ki nga bokkal muy góor dañ koy tuddee sa càmmee la ci wal ki nga bokkal muy jigéen dañ naan sa jigéen la comme jigéen taxuñoo jóg góor ñu tax a jóg comme say càmmee say rakk yu góor ak say mag yu góor ñooñu mën nañoo gis say taax gis nga même bu dee bàyyi rek ngeen bokk bokku leen yaay aw bani ixwaani ngeen na wala say doomi càmmiñ say doomi càmmiñ dañuy taxaw taxawaayu jarbaat ko sa mag bi nga bokkal sa rakk bi nga bokkal ay doomam yu góor mën nañoo xool sa taar ndax la sa yow lan lan nga ci ñoom bàjjen nga ci ñoom moo tax mën nañoo xool seen taaru bàjjen bu defoonu tagal wala mu sol marinière wala mu solu caq ah wala mu sol taybaa ngir di féexlu daa taar mën ngeen nekk ci saal bi nga xool loola te dina wàññi dara kon borom bi subhanahu wa taala mu ni aw wala boog bani ixwaanihinna say doom yi nga xam ni say càmmiñe leen jur aw wala boog bani axawaatihinna sa doom yi nga xam ne sa say jigéen sa jigéen moo leen jur maanaam yow ku jigéen ku jigéen ka nga bokkal mu sëyi fële ay doom yu ji ay doom yu góor bu ñu ñëwee lan nga ci ñoom hmm seen yaay yaay nga ci ñoom kon gis nga gis nga gis nga ruqantaani société bi yëpp l'islam a ngay dugg ko génn rek yooyu yëpp benn bu ci nekk ñooña mën nañoo gis sa taar aw wala boog nisaa yi na seeni jigéen mooy jigéeni jullit mooy jigéeni jullit comme ni ko li ëpp ci mu fassiru ñu waxee dafa mel ni waxtu dab nañu kon nu ngi taxaw foofu di ñaan suñu borom mu boole ñu defal tawfiq te leeral alquran ba mu ubbi suñuy dënn yàlla na yàlla defal nu tawfiq alquran feebari biti yeeg feebari biir yi muy boole di faj yàlla na yàlla bombardé lu ñaar yépp mu saafaral na yàlla na yàlla boole ñi nga xam ne alquran day nekk lool yi ci seeni dënn xam ngeen lool yi mooy période bii di jub si période nawet nga xam day naat day nëtëx day rafet mooy lool yi yàlla na yàlla def alquran mu nekk lool yi ci suñuy dënn leeral ko fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain